salaamaaleykum mbokk Sénégal euh, man la Dabakh Malick waaw dama bëgg a ñëw rek tout ci benn action boo xam ne moo xew ci yoonu Kaolack te action bi ñu ngi koy euh, ñaawlu euh, di wax ne Macky sal na bàyyi Ndeye Khady tout Ndeye Khady Ndiaye tout tranquille Ndeye Khady Ndiaye tooñul kenn Ndeye Khady Ndiaye dëgg la wax ci dossier viol bi nga xam ne accusé nañ ko Ousmane Sonko te loolu xew-xew boobu accusation boobu mu ngi amee ci salon béréb liggéeykaayam muy Sweet Beauté Ndeye xaj Ndiaye dañ ko jël comme témoin mu wax dëgg te yàlla tax te dëgg bu mu wax ne viol amul li ñuy jiiñ Ousmane Sonko defu ko loolu moo feeñ ci enquête bi nga xam ne capitaine Touré def na enquête bi te loolu moo feeñ encore ci certificat de visite médicale bi kon Adji Sarr day fen viol amul sénégalais yëpp leer na yëpp ci sénégalais te ñi nekk ci ginnaaw complot bi du kenn ku dul Macky makisal Macky moo ko woo recevoir ko ci palais recevoir Adji Sarr palais tracé complot bi mu boole ko ak ñoom mbay famille mbay ñooñu ñëw teg diil donc seen complot cool na léegi depuis lors ba léegi bu ñu xamee ni ndeexat yi dëgg la wax ñu ngi koy gudd xatal fexe nañu ba nangu arrêté liggéeyam ñu ne ko amul droit liggéey ñu dóor ko ci contrôle judiciaire nangu passeport am waaye amu ci ñu ngi koy persécuté dem na ñi ne borom kër gi mu jëndee ko ci këram borom kër gi jëndee ko ci këram bagage bi mu dënkaane ko ndey xadi liggéeyatul ba tey ndey xadi taxawul pour talal loxo yelwaan ci ñoom ñëw ci Macky Sall ne ko jox ma ma añ wala ma reer mu ngi toog jàpp njàmburam parce que nit ku ragal yàlla la ku gëm yàlla ku ku ragal bàmmeelam la dëgg rek lay wax ba muy nekk ndaw la dem aji ji makkatal mu karam ñëw toog kon nañu bàyyi ndey xadi tout tranquille waaye Macky Sall ba léegi bàyyiwul mu ngi yónnee ay nawam ñuy kagulaat masque wu dem dab ko ci yoonu kaw la bu mu dem tukki pour jaale ji ay dëj ñu nangu portable bi ci loxoom agressé ko nangu portable bi kon loolu yëpp sénégalais ñu ngi ciy teg bët di nga xam ne mooy jubadi loolu dara wàllu ko lu dul Macky Sall mu ngi fexe pour jéem a arrêté Ousmane Sonko parce que seen projet boobu août ak septembre lañ ko yaakaar déclenché waaye amuñu preuve léegi ñoom ñi ngi yaakaar preuve ci portable Ndeye Khady te portable Ndeye Khady boobu preuve amu ci dara amu ci parce que fa enquête gendarmerie setal ak euh, médical visite médicale ak témoignage Ndeye Khady preuve mu amul ci portable yi parce que Ndeye Khady xam na ne ñu ngi koy sonal ñu ngi koy topp suba ngoon guddi bëccëg Macky Sall na bàyyi doomi jàmbur nañu bàyyi Ndeye Khady tout tranquille tooñul sàccul fenul dafa wax dëggam te yàlla tax donc mu am benn affaire bi nga xam ne maa ngi koy wax Macky Sall mu ngi ci tànk boobu la taxaw bi léegi ñu koy xamal ne bu delluwul gannaaw du ko jig lu mu ko jaral nag ñun jaral nañ lu ko ëpp parce que du ñu nangu ji sacrifier Ousmane Sonko comme nu mu sacrifier Karim Wade ak Khalifa sal Macky Sall élection yi mujj na gagné wu ko 2019 Ousmane Sonko moo ko gagné moom fexe na ba fokkati élection yi ci ndimbalu CEDEAO waaye ñu ngi koy xamal ne Sénégal bi santul sal moomu ko. te nañu bàyyi Ndeye Khady tu tranquille Ndeye Khady sàccul fenul jël nañu portable am nag ñu ngi sonal doomi jàmbur bi nañ ko bàyyi tout tranquille ñi sàcc ay faux billets sàcc xaalis Sénégal di def ay faux billets ñu ngi APR ñu ngi leen toog bàyyi de ñu ngi doxantu ci dëkk bi tey ay citoyens yu honnête di leen créer di leen sonal